ak ñi nekkul ci jataay bi te dina topp ci seen bi nii nekk fu sori ci ay réew yu bokkut ñoom ñépp ñu ngi connecté wu ànd ak ak noonu waaye fu fi waay mën a nekk muy nga jege muy nga sori partout dans le monde ñépp ñu ngi leen di seen di leen bëggee itam nag li ma waxoon ci bi may def déclaration bi communiqué bi dama waxoon ni irsaas a irsaas lii bi ñuy tëj àjjuma bokkul woon ci jataay bi boobu amoon nañu yeneeni idée ak programme yoo xam ne ci lañ nekkoon mu doon yi ak yi fi imaam waxoon keroog ci sonorisation ci biir jumaa ji ak bassin bii ñu war a war a war a defaraat diggante bi ay ndigal bàyyi ko mu Cheikh Modou Mountakha yéen ñëpp seetaan ngeen ko wala ñu ci bokk mu wax ni dafa am yërmande ci mbokki taalibe yi ba tax mënu leen war a teg dara waaye amoon na rek lu ko jaaxal lu mat sëkk ak jaaxle ndax mooy borom Tuubaa mu ne waaye bi ma toogee Seex Bas mi moo ñëw fiital ma ba noppi xirtal ma ci Seex Bas yàlla na ko yàlla di yokk wér ndax ku bëgg fu fanaan ak ku bëgg ku ko wétali ubal but war leen a boole damay wax ni ab jullit jaamu yàllaay tax mu doon ko su ko deful doonu ko boo doon ne jullit ba noppee doonu murit nag liggéeyal sëñ tubaa mooy tax nga doon murit kon dañoo war a boole jaamu yàlla suñu borom liggéeyal ko sëñ tubaa ji sëñ mu taxaw waxoon te liggéeyal sëñ tubaa jaamu ko yàlla bi yooyu amee toog naa guddi goo xam ni parce mënuma tëdd ci lal kere may def communiqué bii di ko di ko def ci ci ci groupe yi dama ko fanaanoo bi ma seetaanee mbokki taalibe yi ñu toog ci kanam seex moom mu taxa yàlla na fi yàgg te di wut ay centaine de millions di ko joxe ba ma leen gisee laa xam ni ñii dañ maa jiit waaye gënu maa bëgg li ñuy def am lu ma yëngal wax naa ko ñenn ci bokk taalib yi ma doon waxal dama wax sëñ maam góor ngom ni ko kiñ donn ñun muy sëñ Aliou Ka liggéeyal sëñ Tuubaa ak joxe addiya sëñ Baye Cheikh kan mi laa ko doon waxal ma ko woowee téléphone ne ko waxuma ni dinaa soññ waa dëkk ba waaye yow may sa jëw li te damaa bëgg a dem Touba seet si sëñ Mountakha néewaa na lu may wax nit ñi jox leen ma nangam néew na lool nag waaye bii maa wala wax ne damaa soxla xaalis loolu laa wax ma ne ko naka seet loo am nga andil ma ko yàgg sa waa kër diglu sëñ maam góor ni ko foo toll lu mu wax ma dim bu ndaw ma ne ko waxaatal ci groupe bi ne leen boo fi kenn andil ci yéen ñooñu loolu dama soxla xaalis damay siyaari sëñ bi te du ma yóbbu lu yées ñaari million mbaa ñett du ko jox sëñ mu taxa man nag xawma jamono ju naqare ju neex nan fexe ba yëpp yëpp bi xaalis laa wax loolu wax ma ko ne ko ci yow moom laa koy tàmbulee tudd naa turu sëñ Matar mi tudd turu Mamadou Sarr tudd turu Baye Demba ñu yóbbaale ñu si na ku ne wut ab lim ngeen dajale ko indil ma ko tey tey tey ci àjjuma jàmp na waaye tey daa ko soxla wax ko ci groupe yi Espagne yi ak yu Italie ak yu Amérique bu nu gisee ma doxe ci nu ma daawul doxe jox leen ma daw ma ko wax damay bàyyi nit ñi ak seen saw waaye bii dafa maa ñor lool nag ndax damaa bëgg a doon murit te bëgg yéen ngeen doon murit muridullahi mooy ku bëgg yàlla boo bëggee yàlla dana koy jar ku ne ci noonu boo leen mars la nga bëgg lo lo la nga bëgg lu muy jar da ko ci def tey si tey ne ñun bëgguñu la nekk mars la nekk ci sëñ Tuubaa lañ soxla te histoire daf koy nettali ëllëg fi ne ku fekkee wuloon jumaa yi Tuubaa sa dara demu ci moo tax sëñ Abdou dimbali woon bi ñu yokk ma jamono mu ne nañ yokk jumaa ji ngir ñu fekkewul woon démb man caa barkeelu ñu def ca lañ ca def Cheikh bi ñu yokk sooroor yi bëggoon dimbali ñi ñàkk murid yi def ci jumaa si Tuubaa taxoon sëñ Mountakha bi def université bi sëñ Tuubaa ko bind waaye bëgg dimbali murid yee tax occasion bii am nag <clears throat> mën naa am balaa déwén ku seetaan ba ña fa war a dem dem fa boo léegi bu Sëñ Tuubaa seet ñu doon defar sama dëkk bi yow da ngay raay sang dong baa ngay wokk bopp rek ku la man ci jaamu yàlla moo la man ku la man ci liggéeyal Sëñ Tuubaa moo la man te loolu am naa ci lu ma wér señaari kër suñu wayjur ñoom dañ daan bay ba mu bay ma ñor ñu fopp ko gerte gaag na mu toll ci ay bërigo dugub jàng na mu toll ak fas ya ko daan bay ñu boole yépp dem jébbule ji noonu sëf ci ay camion dem am di ko dundee waaye mosu seeni mbay ndax boobu loolaa xew ba ñaar fukk di jafe ci liggéey jumaay Tuubaa ji jëmale Sëñ Fallu ñoom seex bu ne loolu lañ la sas kere ba mu bayee ba am bayam mat mu bëgg a joxe addiya te matul la jëkk a génn Sénégal dem Gambie moom Serigne Aliou bàyyi bàyyi mu jaay leen ne leen ne ko na ngeen jaay tool yi ba xam nu mu toll nu jaay gerte jaay dugub ya jaay ñambi ja bàyyi mu nett li nan ni ban ko defee ba noppi ñoom ñoom mbokki taalibe jël nañ ci juróom-ñaari dërëm séddale ko donga yi ngir ñu ci ay puso ak ay wëñ yónni ñaawee seen xar sànni yooyu ñu daan sol juróom-ñaar dara bëriwul wut ci ñaari dërëm xaw ma ñetti dërëm wutal ci sëñ bi ab turki njaareem aku seletment ba sëñ aar yu ñibbisee ñu ñëw gaaral ko di ko lii de moo fi nekk bi koo ko jaayee waaye nag xaw naa manqué tuuti fop ëmb ba ni ko kii rek dañ ko ci wutalu mbàkke ah, ah, kan turkim njaareem la muy turki dara akum sénat ma sénat ni lii ma naan la mën ko ci yii lañ ko jëlee kat bi ko jaayee ba nu dem Cees wutal lu ko fa sénat wax ne ku koo defoon bàyyi mun ne ko man mu ne ko lagg ko jënde woon delloo ko delloo ma xaalis bu ko jëndoon nañ ci nag ay wëñ ak i puso muy juróom-ñaar dërëm ñun ñoo ko séddoo ca boobu jamono ndax boobu bari ko gerte boo amee ñaat dërëm ba ñett dërëm di ko jënd ñett dërëm a jër bari ko sa yàlla ni ku ci yoroon puso mbaa wëñ boo fexee ba wëñ ga dugg saw yaram mbaa puso ba na xam ne ëllëg yomal xaram akabar lu sëñ tuwaay séddale bu nekk saa loxo doo ci jot lu sëñ bu nekk sama loxo la ne doo ci jot te yéen ñii li sëñ tuwaay sama loxo lay nekk dañoo jëlaat puso yi jëlaat wëñ yi jaayaat ko ba mu nekkaatul xaalis bi dellusi ko ci xaalis bi ñoom noonu lañ fonke woon àddee dongo yi liggéeyal seen sëriñ ba seeni bu bu xar ñu jël ci juróom ñaar dërëm jënd ko puso goñ ngir daaxaat ci seeni yére sëñ àll ni delloo leen ko fa mu jëlee woon fa mu net li nañ ñun ñoom ni màggal Tuubaa gii daana jot ci xilaaf ak sëñ Fallu ndax moo wootee màggal gi Tuubaa sëñ Fallu ñu toggee mbàkke añ yi kilifa yi di koy di ko indi biir Touba booba ku toggul kër sëñ Fallu nga koy yóbbu ci giis gi bu noppee mu wax kilifa yi ñu seddale bool yi tas ko ci dëkk bi kilifa yi nga seet ñi sa ceew bu ñu mësaa togg seen ñam ya bandi ko sëñ Ali moom muuraake la daan defar boole ko sat la ku mag bu xànjar gii sat la muuraake lay def gii ndox lay def taalibe bu ñëw bu ne mu tibb kuddug muuraake tegal na sa loxo ci magalu Touba xelli kubéeru ndox jox la nga naan mooy doon sax màggal te teew toggoon nan ay añ fii lañ tegoon sëñ Tuubaa ñoom boo ñam yi ñuy togg duñ ko ñam waaw wax naa leen ni koo xam ne dangay ngay joxe addiye di joxe addiye di joxe addiye ba sa wasila wi dox sa diggante sëñ Tuubaa bi mu waree génn àdduna àdduna dalaa woolu nga wuy si ko mu la billaay barke Seex Rafal Aliou noo ma yaakaare woon fii nu toll tembe tembe mu ne ko yaakaar naa la nu ko raw wasi dama ko wax de ndax man kat kan mu ne ko waaw mu ne ko nekkatuma fekk juróom-ñaari fan di li fa dara dara ci kaw suuf sii ma bëgg nag sama ginnaaw yow yaa may taxaw Alioune Badara mu ne ko yaa may yóbbu Touba ci Sëriñ Touba Aliou mu ne ko yaa may dëjël samay ma fu mu toll mu ne ko lépp sont na mu ne ko nañ ci gaaw te bul wax ak keneen nag lii ma la wax dem nañ jëli yëpp roñ ko andi ko te bu dibéeree mu naa ah, mu ne ko foo mën a na nga fanaan si nekkati guddi googu la sëñ sële sëñ bi génn àdduna bu dibéeree foo mën a nekk nanga nga fanaan si te la nga liggéey lépp na ko andi dugub joojee nga xam ne moom la roñoon saf ko ci ay camion wàcce ko moom lañ moom lañu dajale sëñ bi booba ay ceeb ak yi xewul booba cere la ñuy toog wàcc na ñu ñu def ak teget mooy mooy mooy mooy lale gi tax yooyu lu ñàkk am nañu ko xam fii xam naa suñu war na ko mën a xam bu fekkee miin na miin na kër yi bëgg ah xamu ko lal lal lal da koy defar rabb ko waaye waaye waaye daanaka ak tégale ko maanaam jaag yi ñuy def niiw yi moom lay xaw a waaw ay nit jàppoo ak gong moom lan jàppoo sëriñam njar doxeek moom ba bayax ci xaaju guddi nga xam ne balaa taalibe yow laaj suñu fekk génn nañ dëkk bi ndax bu ñu koy woon sëñ bi kenn du ko yóbbu Tuubaa ah kay ba mu ñëwee ba bayax ba war a jot saxaar ca la sëñ bi ko ci dëkk bi yëg la ni sëñ bi wàcc na liggéey waa di joxe addiya joxe yi ba sa addiya maanaam mujjug li ñu dajale si sëriñ yaa ko def bu nu fi bàyyee noonu nu fàtte ko duñ dem ndax lu nu am toogaay bi ma toog nii jëf jooja ko fi indi li fàttaliku nag maanaam ku fàttali la fal fuli fuli fuliku fii ne ku yaakaar sëñ Tuubaa jamono jii yaa ngi buruuti Tuubaa loo am yaa ngi ko fi yóbbu ngir xalifam sëñ Tuubaa bi warta échec te taalibe yi képp la am te ne daanu Tuubaa ay junni junni nit daanoo sinistré fi nekk nii amuñu fu ñu dëkk amuñu fu tëdd amuñu lu ñu lekk te sëñ Tuubaa yaakaar te moo fi sëñ Tuubaa nee mu toog maanaam tëddatut nelawutut rakkam ñëw ne ko wool murid sëñ bàmba yi moo wax ko ci télé bi ñëpp dégg ko ni tàllal naa soxla baa ko déggee taxam ni murid laa man nelawutuma fas naa yi ne lu ma am danaa ko ci def ku ma am di ko ci def moo tax fajar teel lañ ju bi ma jëlee suba laa def déclaration bi def ko ci groupe bi yépp mu tas waaye yàlla suñ borom dimbalee ma jàmbaar yoo xam ni su sama kàddu daanoo rek lu waay man ni ko def diggante démb ak tey nu dajale fi alal ju toll nii da noppeegul ndax dama bëgg balaa ñaari fan ñu jàkkalu sëñ Muntaxa teg ko ci loxoom dellu siwaat ndax bi bay toog nii léegi sama téléphone yëngutu ku nekk naa ma may ma ba suba bëgg na maa yóbbu lu bari ci ay million insha allah kon nag maa ngi soññ sama bopp jëwriñ di leen soññi sëñ Matar bis bu ndigalu sëñ Tuubaa jógee lu am nan ko beraas bëgguma kat fab suñu ñaq wi dem ba toog ci kanam xalif général bu murit Seex Mawdo Muntaxa Mbàkke fab enveloppe bi teg ko ci loxoom dil si fii kenn koo xam ne danga ma ne aslamtu nafsi dara nekku ci ak may métti ak may métti fii mu ne nii ku sa dërëm dem rek bég naa ci yow waaye ku sa dërëm demul fii ne loolu loolu loolu loolu loolu lu rëy ci man sëñ Tuubaa kat daa waxoon ne ëllëg yow ma xeebat sama loxo sutul si keppay fay waaye buy fay nag jëwriñ lay woo maanaam woo ma ba ma toog ci kanamam ma xob lim bi jox ma ni ma ñii sa waa kanam ma xool gisuma ci diw loolu daal loolu yéeme na bi may woo Baye Cheikh dama ko ni waxuma waa mbaaleen ndax ba tey am nañu yëgagul ni ay murit lañu te yaakaar sëñ Bàmba te yëgagul ni ay murit ndax yëg ni murit la moo murit nga mooy liggéeyal sëñ Tuubaa bu sëñ bi wootee daawul wuy ji bu laajee na ko jox bu teree na nga ba wala sax bu ceef daaw damay tere loolu moo de murit waaye man ak murit la te sëñ Tuubaa jarul la xëy jarul la kont ba màggal jotee nga dem ci dëkk ba wut sa ginaar reyal ko sa bopp lekkal ko sa bopp ñibbisi doo gis a xalifa bi sëñ xalaatuma ko daa ko ñeme wut toogaay bii ngeen toog wër ma bu ci bàmba ci jógee mën na mënuma ci yéen dara da ngeen a fopp seen yëf lonk ma ma lonk ci sëñ tubaa rek ndoo ko a dem sëñ tubaa mooy bopp bi nun ay wago lañu rek dañu topp ci ginnaaw maa ngi leen ko wax yéen ñëpp ngeen dégg ku ñu des di ma déglu ëllëg waxtu ngeen tege xalifa seigne touba ni nangam boy boo ngeen ngeen préparé dama len waxoon fi am at ñu dem touba seigne cheikh mi la andal ak ñu bari way su tarxee yalla nañ guddu fa yalla nañ wërte gëna a man booba seigne ato fi ne ñu invité nu ma dem fa di visiter gis fa lu ne kéré ba may wax naan ñi ñoy jambar dama kon yow yow ab ya fusu nga ñi nga naan ñoy jambar way waaye yow boo defee ni ñoom boo defee ni ñoom mel bari rek lu ko ne tu tu sas la 3000 ay junni junni bu dajalee ku ne juróom benn téeméer mooy lii waaye yow kenn boo defee junni yaa man képp doole yaa ëpp doole kenn liggéey sëñ Tuubaa damaa wax ni kenn nit mën na ko wutal condamné sa biir kër rek sa yu xëy def ci 100 francs rek fas yéene bu bu bu sëñ Tuubaa laajee nga yóbbu ko soo amee soxna yaa sa soxna na ku ne am 100 francs ngeen dugg ci condamné bi rek soo amee doom yaa say doom def ngeen ko mat ngeen daayire nit ak soxnaam ak doomam. yoonu sëñ Tuubaa wii santaane nañ fi ab liggéey nit nekk ci biir këram amul lum yóbbu mu xool ay sengam dajji ko jaayi ko ca marché ba néeg bi ñu fanaan dajji seng ba jaayi ca marché ba ngir am lu mu yëg sëñ Bàmba yoonam ci asamaan seeg taw bi jaroon na ko bu dee maam Cheikh Ibra Fall la roy maam Cheikh Ibra Fall mos naa am néeg bu mool boppam amut baraagam boobu Sëñ Tuubaa ko joxoon de moom lu yóbbu woon Ndar jóge fa indi ko ndànd jóge fa indi ko Cees jóge Cees yóbbu ko Njaaréem jële ko Njaaréem yóbbu ko gébb mu génn àdduna yenn ko dem sampal ko te am na noonu Seex Ibra waaye bëggul woon dara kenn du ni Seex Ibra Faal fi def lii moo ci ngir boppam amul mbubb mu am poos amul néeg amul kër mooy suñu royukaay nag nan fas yéenee dooni jullit roy ko Rasulullaay te dooni murit roy ko Seex Ibra jëf jii daal boo gisee man leen tuddul leen ma tur yi ñi ca ñëpp xam ni jot naa ko ku ci dugg gut déggoo saw tur boo nga gaaw addi yi mu day dem Tuubaa fexe ba bokkoo ci nag yéenewuma ko kenn yéenewuma ko kenn ndax musiba mu rëy la ñàkk cee loo am def ko ci bu li mbiree nga bokk ci boo liggéey bu Sëñ Tuubaa fay fay la waaye daal lu tee dalaw Sëñ taxa ab taalib bi dégg ko te fexe ba sëñ Muntaxa dallu def nga ko mut kon naa ngi sant di gërëm ñëpp te di leen jàjj ci waxtu wu ngeen déggatee ndigal lu irsan nii rek fu xam na fa bay sama am na nag ñoo xam ne daa leen ay yaba yaba ci donga yi ndax damaa xam seen xol ba duma leen yéen boo xëyee damay def leen nangam mais woo maam goo dama ko ne defaatal déclaration ni sëñ bi leen na bëggul lu ngeen yoon booba kenn ci yéen andi ay junne ak ñaari junne ki gën a néew ci yéen andi fukki junne waaye naa ko waxee defe ngeen ko na ko ne seet ci ndul rek diggante daaw leen li la sun borom defal ci barke Sëñ Tuubaa ci daa xëcc ci lii lii yàqalun dara na ngeen sant yàlla seen borom maa ngi woon ci àll joo xam ni wóor na ma ni bu nu waajur woon tey bu soo ak jàmm man lu toll nii dana ko tax saa bopp yóbbu ko ñëw ne xool den xool yoon wi sëñ Tuubaa wii temp wuma ci waaxuwuma ci daa ciy daw te it na sëñ Blaat waxoon ku ma topp ma dem ku ma topp ma dem ku topp dem ku ma topp ma dem ndax sama njariñ ci ne man maa xam ne ma bëgg yéene tamit seen njëriñ na ko xam ne nga bëgg kon nag maa ngi sant yàlla borom bi tabaraka taala mi nga xam ne moo nu bind def ñu ay julit bon ko rasulaay te te te te te dellu pas-pas suñu diggante ak sëñ Tubaa waaye di sant sëñ nga xam ni moom lañ fekk mu doon mu boole noonu moom lépp lu ci waay def boole naa la ak Tubaa mi nga xam ni fu mu fekk lu tuuti mu baril ko xarit mu safar bu ko baree ba noppi barkeel ko mboolem taalib yi ne bitim réew na nga xam dañuy aalu soxna yi wax naa la ko si bàyyi seex tey ci bëccëg daa wax ni soxna yii aka ñuy jàmbaar bu ñu xasee dégg turu say askan si nangam duñ ko defee seen sàkko fii ne dañuy jëf ci daayira soxna sele jëf ci bu sëñ Matar ba noppi yónnee waat ba li yor kenn du ñoom kon nag maa ngi soññ saa bopp di soññ ñépp ci liggéey sëñ Tuubaa bii incha allah balaa ñaari fa ma jógee fii bu guddiwul naa woote xam kañ laa koy jébbule waaye daal bu ngeen déggati ma ni sëñ Tuubaa nee booy bu ngeen gaaw ndax sama yaakaar yi teeg ëllëg ak li ma bëgg te bëggal leen ko foofu la de sëñ bu demee dafaal nee na kuy wut du wuutee te ndigal lu ñëw jàppal ni ca ta sa ajooy fa yow jarab bi boo koy diglu alaaj mbàkk yu fay ñëw fa sëñ bas nee na waa kër Seera Faal yaa ngay fobu ci saase sëñ boo mbàkke 313 millions la joxe ñetti téeméer mi rek foog ñett ànd ak waa këram gépp mbàkke moo koy seer waaye doonu maa bëgg lu baax sëñ bi jax ki organiser organisé wàccam kokul alxuraan bi andi 250 millions ma di ko xol sama yaram da doon daw mu mel dañ ma karawasi waye ku mënul lola seet li nga man ku mënul nga seet li nga man té kay mo wax la nak ku lepp fit ci jëfël sëñ tuba doxal ba ci karam du doon sama rom mukk doon sama rom mukk sëñ Tuubaa daa gaaw ci yokk ay mbir da gaaw kon nag nan gëm àddiye ak liggéey sëñ Bàmba loolu rek mooy kat bi jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa